ak Medina TV ginnaaw bu ñu leen nuyuwaatee di am mbégte contentement jàkkaarloowaat ak yéen di leen ñaanal jàmm te di ko saa ci yéen ginnaaw bu ñu jógee ci match boobu di Sénégal contre Cameroun ñuy félicité suñu Lions yi nga xam ne am nañ ndam lu rëy ci kaw ki nga xam ne moo di Cameroun gannaaw comme ni ko xale yi di waxee jooy yi nga xam ne daanañ ko jooy ay 2017 jàpp ci ginnaaw tey xale yi fajal nañu mer woowu noonu ñu leen di kontaane bu baax a baax di leen ñaanal jàmm bu baax a baax di leen wax bonne continuation looloo tax ñu daal di doxantu fii ci Médina dugg kër parti si seet si ki nga xam ne moo di yaayam ñoo nag fekk ko mu toog si jaare di ñaanal xale yi di ñaanal doomam waaye laa tay loolu dama koy daal di bàyyi mu nuyu ak mbokk yi ne ñu ngi koy suivre en direct rek yaay booy maa ma bàyyi la nga nuyu mbokk yi lay suivre billahi mina seytaani rajim waa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur sa sant di kontaan si yéen tamit waaw mu wax jee bu ñu ma ñëw fekk la nga toog ci siyaara bi yor sa kurus di ñaanal xale yi tey lan nga yëg euh, bi nga xam ne xale yi am nañ ndam ci kooku ah ni ma ko daan yëgee rek si ni ma ko daan yége rek man bu ñuy football du ma seetaan bale naa mbedd bi def naa lu nekk bu bii duggee ma daw xool delluwaat ba nu match bi jeexee nag si mhm. laa jàpp julli timis waaw di kontaan si ñoom torop nag nekkoon match boo xam ne maanaam match de choc lañ koy woowee ñu doon dajeek ñoo xam ne suñuy benn naar lañ heure bu ñu ñoom rek ñu daan ñuy wan seen doole gañe tey xale yu ndaw daal di ñëw fexe ba dindi loolu daal di jàkkaarloog ñoom gañe leen ndax ay xale yi nga xam ne tey ñoo ñëw daal di dindi loolu yéen ñi nga xam ne yow mi nga xam ne tey danga ci am doom joo xam ne mu nekk sa biir maanaam di leen ñaanalaat rek yàlla nañu yokk yàlla may leen wër ba ni ñuy commencé nii ñu yeggale ko noonu kontaan si ñoom bu baax a baax a baax waaw. tey xale yi boo leen doon dolli lan nga leen gën a yokk. ñu gën a góorgóorlu rek match bi jeex na ñu seet beneen match rek. ñu jàpp ko noonu ba bi ñuy indi coupe bi waaw. sa doom nekk ci biir terrain bi dugg deuxième mi moom it wane jum jom fu la fayda maanaam loolu loo ko yare la wala loo ko yab bi muy dem. ah loolu moom si deretam la seen école footballu papa la ñu jaar ba yàlla def mhm. ñuy dem jàmbaar mhm. waaw seen papa moom ku ko xam ku ne mhm. bañkat la musa doon bu ñu waxee ma ne leen seen papa leen ndax koona football bañ naa ko ba Gérard laa la <laughs> ñu laa koy wooye bu ko defee moom lañ may tooñ waaw yàlla na yàlla dolli sutura rek ñu gis ne maanaam moo nekk rakk ci ki nga xam ne moo di pa euh, euh, euh, kii Ciss Saliou Ciss Saliou Ciss nag moom année bee ci weesu nga xam ne bi ñu jëloon ko bi daanaka moo ñu ko indil ren na gisuñ ko ci moom rakk ji nga xam ne moom lañ ci gis tey loolu yaay nan nga koy jàngat. ah mooy li yàlla dogal rek yàlla ko dëggale noonu waaw. ci mm-hmm. yàllaa ko dëggale noonu. Mm-hmm. Saliou Ciss nag mu ngi seen ginnaaw ñoom ñëpp. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. di leen ñaanal ndax ñi ay moromam lañu ñi ay rakkam lañu. yàllaa ko doge la noonu yàllaa ne woon bi yoon di si bokk mais comme rakkam a ngi si maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp équipe bi yëpp samay doom lañu yal na leen yàlla dolli sutura may leen wër ak wër le waaw moom euh, mu fekkee daaw ren rakkam di ko géel du ko def dara du ko def dara moom chaque jour mu ngi wax ak di ko gën a ñaax mhm. waaw réerawuñ ci dara mhm. waaw moom Saliou Ciss doge la woon ni mhm. yàllaa ne woon ñoom ñaar duñu bokk si si bi ren ni mu ci bokkee woon daaw ba indi coupe bi moom mi rakkam yàlla na ci bokk ak ñi mu àndal yëpp ba ñu indiwaat coupe bi waaw loolu daal la ñu bëgg. kon maanaam ba léegi Saliou Ciss mi ngi ci ginnaaw di pousser li nga. Ah, mu ngi ci ginnaaw di leen pousser moom waaw ndax bi ñu commencé compétition bi la leen envoyé ku nekk gis na ko defe naa mm-hmm. waaw mu ngi seen ginnaaw. Mm-hmm. Mm-hmm. mais looy wax Sadio Mané nga xam ne moo mujjee takk te moo mujjee dugal bit bu rëy ah, rek. yàlla na ko jabar ji jig rek ba ànd ak coupe bi ñëw ak moom mhm. teg ko si loxo mhm. ñu gis ne jamono ji dañoo am beneen xar kanam ci équipe bu Sénégal maanaam ay ndaw ñooy fubal te ay ndaw yu jàmbaar lañ te bu njëkk football bi amoon nañ li nga xam ne moo di capacité bi mais gagné gi moo nekkoon suñ problème te ren gis nañ ne ñi ngi gën a évoluer maanaam lan moo waral loolu xam naa ne xëosoo dara ci wàllam football waaye yaa ngi seetaan yaa wante dañoo dañoo màgg rek xale dañoo màgg rek mhm. waaw xale dañoo màgg kon daal faj nañ mer wi. faj nañu mer bi 2017 Cameroun fii la ñu. yàlla na gën a jëm kanam. bu soobee yàlla. amiin amiin waaw. ndax jooyoon na fi jooyu métti 2017 keneen ak man mi sax jooyoon naa jooy jooyu métti. ah waaw loolu nag ñu ni suñu xol yi neexul jël yëpp teg ko ci loxo yàlla rek. Mhm. ba mu jotee yomb na mhm. waaw. mais Aliou Cissé mi leen jiite maanaam di dégg lu ne xam nga yori xale daa métti ak jiite fii nga xam ne Sénégal. noonu la moom ñii naa boo bootee bukki xaj mbaw la mënu mhm. koo bañ mais moom na daa da booleek li mu boole rek noppi di def li muy def mhm. waaw loolu rek la. kon yaay booy du ngeen mere benn yoon Aliou Cissé mi nga xam ne moo ah, wàññi. merewu ma ke merewu ma ko de wax dëgg yàlla. merewu ma ko de hmm. ndax lu mu. ndax maanaam li mu woowut Saliou Cissé. ah déedéet déedéet déedéet mere la yàlla tere ku nekk ak xelam rek looloo ko doy waaw yàlla nag na ko si yàlla dolli sutura rek mu am ndam rek. mais parti mi war a uti Saliou Cissé war a ñëw jëmmal Sénégal représenté ñi nga xam ne mooy waa Médina lan nga koy dolli. ah mu gën a góor góorgóorlu rek ñu ko ci gën a góor góorgóorlu rek mu nekk nii chaque match bu jeexee papam dina ko woo mm-hmm. lu si bon mu wax ko mm-hmm. lu si baax mu wax même bu defee lu baax sax da koy gën a ñaax mm-hmm. pour mu def gën a dolli lu baax waaw ndax ñoom loolu lañ leen yare loolu la ñu xam waaw Saliou moom. bañ na ko ba école bu bu jàngiwaan sax bu bu bu génnee récréation mhm. denc na saak bi daw champ euh, de course <laughs> fala daan nekk di football su rakk ji ñëwee boole ko mhm. ñu jàpp dóor mais bu ñu demee ba xam ne loolu la bëgg a ah, mu ngi noonu mhm. moom parti si aussi gis nañ ne daanaka àddunaam lépp daanaka football la ko fooye ah, waaw football la ko fooye mooy li ma la wax rek dañ see juddu seen papa dafa mës a bëgg football loolu moo tax ñu judd si nekk ci yàlla jàppale leen it en tant que yaay sa doom di jongante maanaam nekk international sori lool boo toogee donte boo seetaanul des fois nga dégg bruit bi lan nga koy lan nga koy dundee. ah damay tiit moom du ma seetaan moom mais ma dem après bu ñu tegaatee match bi ma toog di seetaan mais match moom. du après nga koy seetaan gis ngeen mbedd bu nu bi <laughs> <laughs> ah, da ngay bale. du ma toog ma munti def kay man daal naa am si lu ma jàpp rek. wala may yëg si escalier yi di wàcc dañ may reetaan si kër gi ba bëgg a dee noonu laa ko jàppe ba match bi jeex mm-hmm. mais tey euh, xale yi maanaam sa suñ leen ay match coupe lañ leen sasaat ah waaw yàlla na yàlla nangu rek yàlla na yàlla nangu rek mm-hmm. ñu ngi ko defe woon 2022 ñu defewaat ko noonu ci 2024 mm-hmm. ba ñu indiwaat ko nag si sama loxo président bi balaa moo dem day dem de waaw day dem mais balaa balaa moo dem nañ ko indilaat coupe bi rek bu soobee yàlla te yàlla may ñu ku ku gën nag ci réew mi mhm. ndax ñun jàmm ak salaam la ñu xam waaw mhm. ku bëgg jàmm daal mën a yor réew mi yàlla ñu ko yàlla jox lool rek la ñuy ñaan mhm. jërëjëf yaay maa ngi lay kontaanee ah, maa ngi leen di fay yéen tamit di kontaan si yéen bu baax di leen ñaanal seen liggéey bi yàlla na yokk ba ku nekk ubbi bosam ci barke Mohamed yàlla def juboo seen biir yéen ñëpp ci darajay Mohamed waaw man nag mënuma wax waaw sa xarit la waaw loolu la maanaam bu match amee nga gis ñu daw daal di dikk loolu la loolu la jege la loolu mhm. xam naa ne eh, koy jégalu bu baax a baax mhm. eh, te tamit da di sunu waay dañoo yàgg lool moom xam na bu baax a baax li ñuy wax waaw mu nekk koo xam nit ku baax ndax ñun yàgg nañoo moom avant muy ñëw équipe nationale ba yàlla def ko mu dugg équipe nationale kon fii ñun suñu kër la yow tamit nga yaatal ñu ñu lay sant bu baax di la gërëm bu baax rek mhm. di la ñaanal rek comme ni beneen match bi ñëwaat rek yàlla ñu yàlla mayaat ndam. Guinée Guinée pël Fuuta yi. Mhm. ah c'est nag pël Fuuta ma sama goro pël Fuuta la. sa goro pël Fuuta. waaw nañu niil rek. déedéet yaay boo dañ leen bë. ñu gañ leen rek. <laughs> waaw kon nañ leen gagné bon mais bu mu bëree nañ leen gagné un rek. Ah. waaw mais xale ay ñett lañu yor yëpp ay pël Fuuta lañu. Ah, ay bàjjenu Saali yëpp ak Paate ay pël Fuuta lañu côté bi ah. yëpp ay pël Fuuta lañu. dañoo ah moom a jaaxal ante yàlla baax na. <laughs> yàlla na yàlla def amiin amiin amiin amiin jërë waay jërëjëf ma bàyyi ñëpp maa ngi leen di nuyu mhm. seen tur seen sant di leen di kontaanaat daal seen ñëw bi mhm. waaw mhm. yàlla bàyyi ñu fi nag 2024 bi gën a neex 2022 bi ñu fekkee ko talk ci barke Mohamed. jërëjëf jërëjëf yaay booy. di kontaanee bu baax a baax mais également di nuyu Pathé Ciss l'international nee la xam nga siiwal ko TV mais xam nga Medina TV comme d'habitude rek ñu ngi lay kontaanee di la wax bon vent et merci beaucoup félicitations à nos kenn du yéen ci ñun jërë ngeen jëf merci.